voilà euh, ñu ngi tey ak Khadim Ndiaye di commissaire aux enquêtes économiques mais responsable politique la bokk ci alliance pour la république bu Touba tey nag dafa jóg pour def déclaration par rapport ak situation bu xaw doy waar ci dëkk bi euh, gis ngeen temps yi buntu poste yeeg artères yu mag yi mi ngi fees dell ak nit rawat naay jigéen nee na kat dafa am ay nit yoo xamante ni danoo mal intentionné ñëw euh, ngir jaar seen ko maanaam daaj leen xaalis. pour déposer leen ay aide sociale yoo xamante ni fondation Servir le Sénégal moo koy def loolu nag am na lu si lëntu ba tax mu bëgg jóg leeral nit ñi ñu mën a xam ce qui se passe réellement ak tamit lan moo waral aide yooyu parce que ñu ngi si wax di si tudd APR ak yu ni mel te seen wàllu politique mën na leen yàqal ak tey commissaire xam naa yaa gën a préposé pour wax si situation bu chaotique boobu am si Touba ñu bàyyi la nga leeral ñu ak la moo laxas si mbir mu ni mel. jërëjëf Babacar képp ki nga xam ne mi ngi seetaan à travers xibaar 24 waaye nga meema rek bala maa tontu ci laaj boobu donc ma masawu coono présenté samay condoléances ci li nga xam ne dem démb moo dal ci réew mépp rawatina dëkk bu sell ba ci Tivaouane muy euh, euh, moomil yooyu nga xam ne suñu borom dafa dogal lakk gu fa am mu yóbbu leen donc ñu ngi présenté suñuy condoléances au khalife général des Tidianes di ko présenté donc tout la nation sénégalaise di ko présenté président la république Macky Sall xam ne donc euh, rafetlu nañ tamit euh, wax dëgg yàlla nous salion décision yi nga xam ne jël na ko comme ni ko xalif bi waxee nee na ko lii lañ doon xaar ci yow bu mbir amee def nga yëfi kilifa kon donc ñu ngi féliciter président de la république ci taxawaay bu am solo bi di ñaan yàlla tamit euh, wax dëgg yàlla li nga xam ne moo am bañatee am ba ba faaw ci Sénégal di maslaw tamit njaboot gi ak li nga xam ne moom moo xew yëpp donc ginnaaw bi loolu jàllee donc ñi ngi ziar sëñ Muntaxa di ko di ko di ko nuyu bu baax di tamit euh, di di ko tatagal ñun ñu nekk ndakaar di ko wax na ëhlan wa sëhlan ndax ñëw na fa def na fa ngan gu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla euh, Serigne Touba moo ko yëkkati Serigne Touba moo ko fa bàyyi donc taalibe yi mobilisé woon nañu donc ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla di ñëwam boobu tamit wa mu doon prétexte ba jàmm bu sax wàcc Ndakaaru ak lépp lu ko rawatina ci jongante yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ginnaaw bi loolu jàllee nag da nga ma posé question d'actualité bu am solo donc mu doon ay kaddu yu leeral ndax ñaari mbir dafay daje ndax euh, ku ne xam ne son excellence se le président de la république Macky Sall depuis bi mu toogee ci réew mi 2012 ba nëgë ni demee sax damay wax ne avant muy toog wër na ci Sénégal gépp ba xam li nga xam ne moom la population yi soxla mu indi benn programme de développement communautaire équi li ñuy tuddee équité sociale boo xam am ci benn pays en ci biir loolu mu indi li ñuy tuddee bourse de sécurité familiale mooy bourse yoo xam ne à la fin de chaque mois euh, famille yi nga xam ne dañoo néew doole ñu am lu ñu leen di jàppale. ci loolu mu tàmbali ko depuis 2012 moo am première phase bi lu ñu tuddee SN1 amaat deux trois phase bi SN2 amaat troisième phase bi SN3 mais aussi mu amaat beneen phase boo xam ne après les élections la am 2019 nga xam ne bépp programme social bu muy bu boo xam ne état daf koy. développé daanaka foofu mooy base de données bi nga xam ne en dehors du risque global du risque bi nga xam ne moo am bépp programme boo xam ne état daf koy jàllale foofu la koy jàllale. loolu tax na ñu nekk ci ba nga xam ne ni nii 42 milliards yi nga xam ne décidé na plus de mille ménages. di leen jàppale ndax fi jamono toll guerre bi en Ukraine nag yu demee noonu pouvoir d'achat sénégalais yi xaw a métti mu ne donc danaa leen ko dimbalee jàppale leen ko ndax néew na chef d'état yu doxale noonu mu def ko noonu ñëpp salué ko Sénégal gépp rafetlu ko waaye nag mu am ci ay samba boy yoo xam ne ñoom bëgguñu lu baax fu ñu ko fekk bëgg koo yàq ñenn ñi parce que bëgg nañu xaalis ñi ci des it ay opposants la ñu nekk ci suuf ñoo xam ne jàpp nañu lépp lu am rek war nañ cee mën a xëpp kaan yi te loolu du mën a nekk ndax bi mu amee yàlla suñu boroom dogal ñu séddale ko nañ ko war a seddalee moom fii ci Touba tax ñuy wax ñoo xam ne bi euh, corona bi ñëwee bi corona bi ñëwee am na ci benn frange boo xam ne mayoon nañ leen ci dund gi te ñooñ bokkuñ ci riche golo riche euh, bi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy wax li ko waraloon mooy enquête nañ leen gis nañ ne ñoom yelloon nañ woon ceeb bi ak lañ doon joxe bi mbir mi amee nag état daf koo def ay cash transfert ja jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci risque global unique bi soit ñu am carte wala bokk ñi nga xam ne mujj nañ leen a defal enquête après 2019 bi am def nañ leen enquête waaye amaguñ carte ñooñu lañ ko jox waaye il n'est pas dit ne képp ku nga xam ne joxoon nañ la ceeb ci 2021 bi rek da nga ciy bokk ñooñu nag la ay sàmba booy dem ci ñoom ne laa leen jox leen ma nangam ak nangam ma fexe ba ñu yónnee la transfert mbinu mu bees amul benn bind bu bees depuis 2019 bind bind bind nekkaatu fi képp koo xam ne nii sa tur nekku fa woon soit nga am carte wala ñu mujj laa bind concerné wu la encore une fois de plus foog mu leer kon nag ñi ngi lancé un appel à la population Touba ci fànn gu mel noonu xam ne képp ku ñëw ci ñoom di leen laaj xaalis ak bu mu mënti doon te par rapport li nga xam ne mooy aide spéciale bi président di jox di joxe ñooña noonu ay sàmba boy lañ ñenn ñi sàmba boy ñi des sax man li ma mën a wax mooy daanaka suñuy opposant rek kay jaar ci ginnaaw ndaxte objectif bi lenn la bëgguñoo jaxase askan wi jaxase président askan am na lu leen dig loo xam ne joxuñ joxuñ leen ko pour que jongante yi ñëw ñu bañ ñoo sanctionné mais ça ne passera pas ndax ñit ki su fekkee ne da ngaa ñëw dugg ci réalisation président tu n'as rien vu gis nañ mu def Touba lu mu sa def ñëw ci diabolisation bi ci homosexuel doxut ndax barki démb li nga xam ne moo dal suñu compatriote bi Idrissa Gana Gueye ni ci président taxawee jàppale ko bañ ne dañu jël ay avocat pour taxawu ko mooy wane ne xam na ne homosexualité du mas a am Sénégal taxawu na ko jàppale na ko à travers tout le peuple sénégalais parce que dañu am suñu valeur ñu xam ne foofu du dox ñu ne nag nañu dem fexe bu ñu leen yàqalee jaxase leen nag euh, population yi ça ne marchera pas ñu xam ne donc ñooñu noonu la ñu bëgg du am parce que mbir mi leer na may lancer un appel à la population di leen wax ne surtout ñi nga xam ne ñoom la euh, programme social bi concerné ku ci am ay lënt koo xam ne peut-être waroon nañ ko yónnee yónnee wuñ ko dafay am wala ko xam ne nii xëy na ñi ngi ko ñi ngi ko bind au delà c'est-à-dire à partir de 2019 xamul ndax am na am na dem ci la fédération du Baol nga xam ne ministère développement communautaire ñoom la ko dénk mi ngi tableau caabi ku am ku dudoo réer donc ñu dem bu ñu demee foofu lépp lu ñu soxla ci information danañ leen ko wax ci seen cas te bàyyi ñi nga xam ne dañoo ñëw ñenn ñi xaalis leen tax a jóg ñenn ñi pour yàqal président de la république moo leen tax a jóg biir Touba. loolu mooy première information bi nga xam ne war nañ ko jox di sant nag président bu baax ci taxaw gi nga xam ne taxawu na ko askanu Sénégal rawatina bu tubaa ndax boo xoolee ci bourse familiale li fi am ci ay ay bénéficiaires kenn xam lu mu toll ci àdduna dañ ko koy sant di ko gërëm 80 000 francs francs yooyu am na ñu mu yor ay ay weeri weer ñoo xam ne du dund lañ doon tiit donc mën naa ne suñu borom euh, lijjanti na ko ci kàttanu président ak ci ndimbalam ak ci yërmandeem donc dañ koy sant di ko gërëm ci loolu. beneen bi mooy loolu aussi dafa doon loo xam ne dafa doy waar di tàmbali suñu kàddu di sant madame euh, Marième fay Sall la première dame bi nga xam ne moom moo jiiti mooy jiite di du moins sa euh, fondation Servir le Sénégal ndax liggéey na ci social loo xam ne néew na ku ko mës liggéey ci Sénégal fépp tànkam ba nga fa secteur bu ne dem na fa bépp couche vulnérable de la population taxawu na ko gàcce nga la moom ñu ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay bi waaye nag nit la koy liggéeyal yàlla am ñu nekk ci ginnaaw ne dañ koy yàqal pour des raisons xawma lu ko waral benn benn bi mën naa ne xaalis tax na ko bi ci des comme li ma wax rek ndax ku ko tudd da nga tudd donc régime bi ñu ne nañ ci jaaral ñoom tamit yàqal ne am na luñ dig nit ñi defuñu ko loolu lañ du nangu ndax mbir mu ni mu demee mooy dañoo jóg fan yi mu am loo xam ne naka jekk fondation Servir le Sénégal daf ko yàgg def ay ndimbal yoo xam ne événement yu jot ñu ñoom ñoo yor seen i critères xam ne ñi ñi dimbale muy dem ci ay population di ay xarak leneen lu mënti doon mu am koo xam ne dugal na benn benn son benn audio laa ko tuddee dugal ko ci réseaux sociaux yi ne donc um, premier dame dafa lancé message ne képp ku bëgg a déposer na ñëw déposé dafay jox ni ñi ay aide xaw ma 200000 lañ lañ tudd mu doon loo xam ne moom sax wax na ci ndax nee na yónnuwuma kenn waaye ñi nga xam ne yàlla dogal na indi nañ ba pare te bëgguma tas yaakaar kenn dinaa seet la ma ca man la ma ca man ak xeetu xeet yi ndax kat bët du yenu waaye xam na lu bopp attan ma jàppal leen waaye nag nañu xam ne yónnuwuma kenn ginnaaw ba mu ko waxee ba pare nag dañoo gis mbir mi di continuer di dem am na ñoo xam ne fii ci xayra dañoo dajale ay nit judul jeex di leen laaj xaalis 2500 1500 ça dépend ne leen fii si ñoo leen ko yóbbul Dakar amaanul te heureusement que service compétent yi ba ñu ko yëgee ñu ngi def seen liggéey am na ñu ci jot a jàpp te yaakaar naa ne il faut que ñu lancer un appel à la population ñu xam mu mbir amee fan la ñu war a dem ndax fondation Servir Sénégal am na ay canaux officiels. yoo xam ne bu la muy liggéey depuis 2012 ba léegi mi ngi koy liggéey te coow lu mel ni Moussa am parce que xam nañ fu ñu koy jaarale suñ xëyee tey à chaque fois quand on s'approche des élections mu am ñoo xam ne seen yéene leen rek la mooy yàqal président de la république biir Touba gi cette fois ci nag on l'acceptera pas du ñu liggéey ba yëg ci fii ay Samba Boy dañu yàqal suñu liggéey ñuy wax population bi ne loolu ñuy wax amul amul ci benn koo xam ne nii fiis ya ko yóbbu Dakar ak surtout ñi nga xam ne ñu ñoom ñoo koy jël fii kenn santu leen ko santu leen ko ëllëg santu leen ko tey santu leen ko mm, ëllëg première dame à la fondation Servir Sénégal comme ni ma ko waxee saa yu amee ay œuvres sociales yi muy def xam na fa mu koy jaarale kon nag ne leen leer na ëllëg ku kuñ ci lekk sa xaalis nga ñëw bëgg koo jiñ président yoonum néew ci kuñ ci lekk sa xaalis nga ñëw bëgg koo jiñ première dame yoonum néew ci kuñ ci lekk sa xaalis nga bëgg koo jiñ waa APR suñu yoon newu ci mouvance présidentielle suñu yoon ci ndax kat ñun digguñ ko kenn président li mu diggaloon askan wi ci 80 milliards fa mu ko war a jaarale jaarale na ko fa. Eh, soxna si également lépp lu mu mës a dig population yi ci œuvre yu mel ni ci événement yi ma ngi koy def néanmoins fexe na sax ba jéem loo xam ne mënu ko ci bañ a tas yaakaar waaye nag lu ëpp tuuru dafa jot nag ñu wax ak doomu aadama yi ne leen nañu yeewu aada yi réew néew na loo dégg rek. ne loolu dëgg la ngay ngay dem dañoo war a réseaux sociaux yi am na njariñ waaye tamit la muy yàq dafa gën dafa bëri du moins newul ne loo dégg rek nga ne loolu dëgg la naa ko jàpp di parax parax yi dem di déposé ji wala ngay dem di ñàkk sa xaalis su mbir mi amul nga neñ man de digoon nañ ma loo xam ne defuñ ko bëgg bëgg cee koo xam ne wala nga xalab kii kooku defut waxut nañ ko moytu ñooñu nag nañ ñeen wax lu leer yoon mi ngi tam mi ngi def liggéeyam nañ ko bàyyi yoon mu def liggéeyam mais sur le plan politique on n'acceptera pas que que nos actions soient à néant wala ñu boole ñoo population te defuñu waxuñu soxna si la mu war a liggéeyal askan wi Sénégal gépp teg nañ ci seen bët te duñ nangu nag ku ko yàqal fii ci dëkk bi muy benn lañ le président liggéey ci dëkk bi duñ nangu kenn ku ko yàq loolu que le message soit clair kon ñu ngi yee population bi euh, euh, pour ñu gën a mën a xam fi ñu teg seen tànk loolu amut comme nañ ko waxee donc nañ gën a góor information bi nga xam ne suñ ko bëggee nañu jàll fa nga xam ne ni foofu lañ ko mën a wutee